ci Moustapha Dramé di oustaz moom it dafa jël ay révélation rek daal di koy def ci ki nga xamante ne mooy Diomaye Faye dañ dem seetaan vidéo bi ñëwaat laaj dégg waaw booy dañ doon xeex ba cinquante personnes ñàkk sa bakkan ci lan mm-hmm. Sonko buñ ko jàpp mm-hmm. buñ ko tëj mm-hmm. na bokk ci élection yi jàpp nañ ko tëj nañ ko bokk ci élection yi dàq na élection yi dara xewul dama ragal nag wéy yi ñëw forage Pastef am oh li bëgg ma ko wax mais programme mu ngi ci kanam calendrier la. Mhm. teel li ma lay wax. waaw bés bu ñu jugee Sonko ak Diomaye Faye ak petit yenn responsable politique yu dox yu dox nii. waaw bés bu leen gars yi jugee. Mhm. ba leen. waaw dama ragal kay da nga gis ku daanu kii jàkk ku daanu kii kër jàkk. waaw procès dana ubbeeku. waaw bés bu ñu condamné gars yi ci loolu. buñ a buñ amee avocat bu baax fukki at yi mën naa manqué tuuti. Eh. buñ amul avocat vingt ans la ñuy tëdd nal benn. dossier bi nga gis nii. 12 millions de dollars bi ngay gis uh-huh. lu la. Mm-hmm. <laughs> lu la enquête de a la. xoolal. moi, koo ne suis ko bokk Moussa laa yónnee wéef. moo mm-hmm. xam nga chroniqueur. Mm-hmm. wala wala animateur. li procureur. ñu la jëm. élection yi bu du am kenn ku éligible. je li ma pour laay maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala wax ji ma a wax yàlla kese laa ci nam pour ngeen fagaru xam ne affaire bi métti gut day a door leer na leer na ku bëgg a dégg-dégg leer na wala leeru nañ ñoo ko déggandoo Moustapha Dramé moom nekk xam nga waaroon nañ la fii ma ne oustaz oustaz tey ngaa bàyyi politique bi ma ne bàyyil politique bi vaaroon nañ la fi dee nga ne Sonko du bokk jomaay sa du bokk jomaay ñoo bokk ñu vaar la waaye oustaz doo bàyyi kii te nga ñuy waar ci lislaam bi ñaanal ñu jàmm wax na leen de nee na waa Pastef ngeen préparé wu bu procès amee te dina am léegi Ousmane day am procès Diomaye da procès te buñ leen attee dañ leen di tëj moo ko wax du samay wax mu ngi noonu waa Pastef deg ngeen ko legi nak mom mom vaar nañ ko fi man pour man dotul wax parce que vaaroon nañ ko fi wat ci yàlla bu jomay bokke ñu wowe ko le amna lu mu waxon ñu wowe ko man duma ci jaar nee bu jomay bokke ñu wowe ko lolu wala Sonko bu bokke ñu wowe ko lolu Sonko bokul jomay bokk Sénégalais jël ko di wowe lolu deux semaines après mu ngi waxat ah yalla baax